injiili Mbakke yaa gën ku la na yàlla anta habibi wa xalili kuntu xablu tabibi habibi xalili أنت إيسي ومفخري أنت جاي أنت كنز فخر كل العبيد ومفخري أنت جاي أنت كنزي يا رسول الله رمي أنت إمامي تفوقي دورا إمامي كريمي أنت ما بيزن دمبقي أمي ثاد ربي بك العين معين عن جنبي كان يبقي أمامي لين معين معين من صدر ربي ñu ngi kontaan ci bis bi bis bi moom ala daw na ma pare rek barke sëñ Touba dara manquéwul suba ba léegi ñu ngi togg di ay berne ginaar yaa ngi ñëw boisson yaa ngi ñëw pomme yaa ngi ñëw dara du manqué barke sëñ Touba ak i réer gan ñi rek ku fi ñëw di nga lekk ba suur di nga naan ba mandi Touba rek am ñaanu sëriñ bi nag bar su dee yàlla nag jullit ñu ngi sant sëñ Jili ah. amuñu foyam barke sëriñ Touba ndax moo ñu defar defar suñuy doom fii amoon na nu mu ñu tëdd naan mbëbës dafa garaaw mbëbës dafa garaaw xale yëpp bàyyi nañ tux xale yi bàyyi nañ ñu naan dara ñoru leen lu yàlla yeneen te ba Serigne Touba barke Serigne lépp nag sëñ ji la de ak suñu yaandee Diop waaw kontaan nañ ci xale yi xale yi ay jàmbaar lañu barke Serigne Touba xale yu góor yi ñu lañu bala nga xam ne ñoo jàmbaar a dëgg màggalu Touba su màggal Touba ñëw dañuy lu waay laaj rek kenn ku ne génn sa poos doo xaar kenn ñu naan la cotiser kenn ku ne da ngay génn sa poos macha allah tabaarkalla yaa la yàlla cat di sant nag sunu jëwriñ Ndeye Fall jëwriñ jaa ne sunu jëwriñ yaa nga nii Bintu Daaboo ngi nii sama turandoo Yaas na ngi nii toog jëwriñ ko Bacuun Ndeye Fall sama yaay Astu ne ku leen juum barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñu ne àndal كل أم جاك بيت عاني كل أم جاك بيت بلا أيس كل أم جاك بيت عاني يا دمبلي جامي يرم جامي كل أم جاك بيت عاني waaw di sant yàlla ak yonent bi sant suñu sëriñ bi sëñ Jiili Mbàkke di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér lool lu fi gën a yàgg rek muy gën a neex defar na dëkk bi defar na Touba Malika macha allah léegi defuñu lenn lu dul daal nekk ci ginnaawam rek mbakke bisam bi yàlla na ko yàlla teewe yàgg a teewe ci barke sëriñ Touba sant nañ ko gërëm nañ ko oyof na baax na yëg na ñëpp Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér soxna Marème gay daayira ah daayira Kër Massar waaw sant yàlla bu wér rekk di ñaanal sëñ Jili Mbàkke mu yàgg fi lool te wér yàlla bàyyi ko fi suñu kanam ba muy woote bis yi ay ati ati kàttanu suñu borom te barke sëñ Touba Xaadim Rasool ay yaa defal yàlla lépp lam santaane ba yaa jar di xëy di gontu ba far dee gontu ba far dee yaa defal yàlla lépp lam santaane yaa defal Mustafa la xawsu yatanoon yaa di xayrul qadimi fi diwaane la خمسية نون لدخي Baye Moussa Bey waaw waaw bis bi de day bis boo xamante ne da nga ko baax taxawal fii sëñ Jili Mbàkke Abdou Aziz soldaaru Bamba di ko taxawal fii di ko di ko taxawal fii muy bisu am solo di bis boo xamante ne maam da ngeen baaxoo waajal bu baax baax waaye nag ñooy ngi yàlla bu baax. gis nañ ci ay yokkute yoo xamante ne saa su ñëwee rek da ay yokkute la ñooy waa waa Daara Isbul Xadim bi nga xamante ne ñoo nekk fii euh, M3 waaye suñu jil tamit di kenn ci gox bi di koo xamante ne daa defar ndaw ñi tegal gën leen tegaat ci yoon ñun nag ñoo taxawee ñun ñoo baaxoo nekk ci waañ bi fii waa Daara Isbul Xadim daaw ay mbaxal lañ defoon waaye ren tamit doo ñëwaat defar ay mbax ay mbaxal yu am solo yokk mbana yi daaw exemple te daaw fekkoon mën ay juróom la ren fukk la te loolu yokk yokkute la te gis nga mbooloo mi ak mbokk taalibe yëpp ñëpp ci waañ bi di seen bu baax nag sëñ Tuubaa daa daa waxoon ne sama liggéey ki ma liggéeyal maa ngi sàmmal sama bopp te saa su ne dëgg si boppam ak yokkute daa wax ne wax di xawaa xawaa ijalis na daamu fii xidmatin wa hëb lahum maaraamu te loolu gis nañ ko suñu biir bu baax a baax di santaat yàlla nag di ñaan suñu jile Abdou Aziz mu gën mu gën a yàgg gën a wér gën a am kàttan ba xamante ne li mu yéen liggéey ko maam day am loo xamante ne moo euh, moo gën a kaw njot loolu barki borom Tuubaa soldaar yaa ngi nii ñoom dañoo xëy suba teel ñëw fi waa daa isbu xadim ki mooy jëwrin mbana euh, daal meng jëwrin café yi ñii ci waa kuréel lañ bokk ñii bokk ci waa ci bi waaw ñëpp ci ci góor yàlla bokk gis nga soxna yi fële waaw di ñaan saa su ne rek muy gën a yokk di gën a jëm kanam ñu tamit ñu gën a yokk saa yi ne aw baat nan barki maam Sëriñ su day jib ma waa ibu day jib su booba rahima baal dani dëlle jaram tuuba ajarama Seex Rafaal Rafaal Seex Ibrahima Baay Faal bi Seex Ibrahima Faal tuuba fal bi bay fal bi fal bi Seex Ibrahima Faal dani delle jan ma faram Tuuba yaram na Seex Rafa Ibrahima Faal dani delle Injiili Mbakke yaa gën ku la dal di gën ku la noonu dootul gën lii wër na Yàlla